jërë ngeen jëf sunu mbokk internautes yi mbokk yi dañu bëgg a ñëw ak yéen ci ay xibaar ndax ñi nga xam ne ñooy entourage u Serigne Mountakha Mbacké Bassirou am nañ lu leen naqari lool ñoom entourage bi ci journal bii ngeen jàkkaar lool di direct news fii ci Touba bëri na ñoo xam ne ay kilifa am nañu lu leen naqari bëri na ay taalibe yoo xam ne bi ñu ko yëgee wala ñu lire journalu euh, direct news am nañu lu leen naqari ci journal ndax journal bii ngeen jàkkaar dafa bind lu dul dëgg journal bii ngeen jàkkaar lool dafa manqué respect xalif général des mourides journal bii ngeen jàkkaar lool dafa manqué respect képp kuy taalibe journal bii ngeen jàkkaar lool dafa manqué respect sëriñ Basiru Mbàkke Poroxaan bi nga xam ne moom la sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru yónni woon Dakar ngir mu dem ñaanal ko opposition bi ñu bàyyi manifestation bi nga xam ne moom la ñu bëggoon a amal ci samedi ji li ñu bëgg a leeral foofu mooy journal bii di Direct dafa xëy bind tey ci samedi ne délégation bi nga xam ne euh, ñoo demoon gisante ak opposition bi ñëw ci turu xalif général des mourides délégation boobu sëriñ bi yabalu leen sëriñ bi yónniwu leen ci biir loolu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma mii ngeen jàkkaar lool nii daf ci indi ay leeral ñu wax leen euh, li nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma euh, bind ci page Facebook am weddi journal Direct News euh, sëriñ bi nee na moom Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma moom nii ngeen jàkkaar lool lim bind laa leen di liiralal dafa bind ne mën naa leen a firndeel dëggalal leen na leen délégation bi nga xam ne moo demoon seeti opposition bi ngir ñu waxtaan ngir jàmm am te sëriñ Bassirou Mbacke Porokhane jiite ko sëriñ Muntaxa moo leen yónni dafa am ko jege lool xalif général de mourides sëriñ bi da ko jox ndigal na ko jëlal sa téléphone nga wool ma Mamadou Diop Decroix na ma wuy si fii si Touba wool ma ku ñuy wax Makhtar Souran mu ñëw wuy si ma fii si Touba wool ma ku ñuy wax maître ma dikka ñaa mu ñëw wuy si ma fii si Touba kooku woo ñett ñooñu ñëpp ñett ñooñu kenn ku nekk taal sa oto ñëw wuy si sëriñ bi ñoom ñett bi ñu ñëwee kenn ku nekk dafa ñëw di xool sa morom ndax ku ne xamul li xew bi nu ñëwee waxtaan ak sëriñ bi sëriñ bi boole leen ak sëriñ siiru Mbàkke poroxaan na leen sol leen seenu dàll génn dem dakaar waxtaanal ma ak opposition bi nga xam ne ñoo bëgg a amal manifestation ndax loolu moo gënoon a jàmp ñooñu ñoo doon organiser manifestation boo xam ne jàmpoon na sëriñ bi yabalab délégation ngir ñu may ko ñu bàyyi manifestation yi su ko defee ñu waxtaan xool nan la jàmm di amee ci réew mi muy njariñu ñépp li ñu bëgg a leeral foofu mooy journal bii di direct news dafa xëy bind tey ci samedi ji ne délégation bi nga xam ne euh, ñoo demoon gisante ak opposition bi ñëw ci turu xalif général des mourides délégation boobu sëriñ bi yabalu leen sëriñ bi yónniwu leen loolu nag la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma weddi di dëggalal àdduna bi yépp ne leen délégation boobu sëriñ Muntaxa moo leen yónni ngir ñu waxtaan ak opposition bi li metti entourage sëriñ bi mooy lan moo tax sëriñ bi jël initiative yónni délégation journaliste am audace osé taxaw di wedd loolu te amul yenn firnde yum si teg manque de respect foofu la commencé kon mu nekk loo xamante ni tey lu doy waar doy la lii lañ ñëwoon ñun waa bawal info point net ñu ne nañ leen ko leeralal